Mamadou Ndione ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou. yow yaay directeur général bu ko COSEC nekk aussi économiste ñu tàmbali waxtaan bi ak euh, lu soxal plan de relance bi nga xam ni président de la république euh, moo taxoon mu woote ab conseil présidentiel euh, si ndorteelu ay bés bi ñoo nekk waaye nag ñu bëri dañu am xel ñaar ci plan boobu surtout taux de croissance bi nga xam ne mi ngi koy yootu muy taux de croissance buy romb huit pour cent fan ngeen wékk yaakaar boobu ngeen fësal. nañu yaakaar ci loolu li président annoncé parce que comme niñ ko xamee euh, déjà damay rafetlu ni président doxalee waxtaan bi keroog nga xamante ne sénégalais yëpp ko seetaanandoo mais également sénégal yëpp fa teewoon ndax secteur privé mu nga fa woon organisation syndicale yi organisation patronale partenaire technique gouvernement ak entreprise Sénégal yi ñu leen teewal ñëpp a nga fa woon euh, boo gisee président jël euh, waxtaan bi mu doxale ko noonu dafay bëgg gën a yokk euh, soññ ñëpp ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ pour ñu gën a jàpp ci li muy li ñuy def nii li ñuy déroulé actuellement Sénégal bi président Fallon dafa dawal ñaari at deux 2012 2014 mu taxawal plan Sénégal émergent maanaam tëral yoon boo xamante ne euh, ci ñaar fukki at la fas yéene depuis dem génnee Sénégal ci situation bu difficile bu mu nekkoon 2014 ak 2018 Sénégal euh, taux de croissance am maanaam ni ñuy xaymaa yokkuteem dafa nekk euh, dafay dafa doubler euh, période du 2010 2014 ñu am 6,6 pour cent ci deux diggante 2018 2014 amoon 3,4 pour cent ci diggante 2010 2014 kon ñu ngi woon ci yoon bu baax bi yoon bu baax boobu nag deuxième phase bi plan Sénégal émergent bi président lancé woon juste bi muy doog a falu ci en deux mille dix neuf dafa lancé euh, deuxième phase bi tuddoon ko PAP de muy programme d' prioritaire de deuxième phase ñu dawal benn at am gan gu gane ci àdduna bi lëmbe àdduna bi ñu koy tuddee coronavirus coronavirus nag bu mu ñëwee dafa yóbbu ardo dëkk yu bëri mbokk na ci dëkk yi gën a mag Amérique tey ji fanweeri euh, million yi doomu aadama ñu ngi ñàkk nañ seen liggéey ndax coronavirus France lu bat fukki junni euh, fukki million ngi doomu aadama ñàkk seen liggéey fukki million ak benn ndax coronavirus kon coronavirus dafa gësam àdduna bi dëkk yëpp yëpp ko ba mu ñëwee Sénégal président euh, daal déroulé benn programme bu ko permettre mu fexe ba wàññi coono bi Sénégalais yi naroon a am boo fàttalikoo ci la jàppale nit ñi ci dund jàppale hôpitaux yi mais également jàppale entreprise yi muy programme mu mille milliards boo xamante ne moo ñu permetre tey jii euh, dëgg la euh, feebar bi gësam nañu mais ñu mën a résister euh, président bi mu defee loolu ba noppi mu ne nag yoon bi ma jëloon ne deux mille dix neuf deux mille vingt trois muy deuxième phase du plan Sénégal émergent waruma wàcc yoon boobu waaye nag il faut ma defarwaat pour mën a egg fa ma yaakaaroon ne dinaa fa egg incha allah en deux mille vingt trois moo waral mu lancé PAP 2 ajuster et accélérer maanaam programme ba mu laa jël ba léegi mais dama koy defaraat accélérer ko waaw PAP 2 boobu nag moo euh, président de ko wéer ci ponk yu am solo ndax ponk bi ci jiitu mooy mbay mi nee na mbay mi il faut ñu mbay dundee ak doole te mbay dundee boo ko waxee di nga transformer li ngay bay président président également ne mbiru wér-gi-yaram il faut ñu renforcer ko maanaam renforcement boo xamante ne état da ciy def li ko war Euh, secteur privé def ci li ko war mu ne par effectivement ci wàllu industrie maanaam ni ñuy soppalee meññeenteef yeeg ak yeneen euh, façon wu euh, kii président dama koy gën a renforcer boo seetloo Sénégal parc industriel am na fi amu foo woon yooyu daf koy gën a renforcer président ba tey mu ne mbiru xarala yu bees yi ñu koy tuddee l'économie digitale nga xamante ne ci période Covid bi sax xale yi doon nañu jàng di jaar ci xarala yooyu mu ne faw ñu renforcer ko mbiru tourisme ak transport aérien nga xamante ne ñoom ñoo gën a yëg coono ci feebar bale président ne faw ma renforcer ko doole ci ay moyens mbiru habitat logement yeeg yooyu mu ne dama koy renforcer ak mbiru assainissement mais également lépp lu mu tàmbali woon muy programme bi ñuy tuddee PUDC lépp lu muy def jëm ci euh, réewu kaw yi mu ne dama koy renforcer renforcer formation professionnelle renforcer également lépp lu jëm ci gouvernance territoriale ak mbiru jàng président nag loolu yëpp nag dafa ne dama koy wéer ci secteur privé national bi nga xam ne ceeb kilifa entreprise yi la ak état bi ak partenaire technique au développement yi ñoo war a boole seen doole pour génnee koppar gu war a tabax loolu loolu nag lu ci bëri état mobilisé na ko lu ci bëri programme yi mu ngi déroulé wu lu ci bëri ñu ngi réformer également yenn yi pour gën ko accélérer kon euh, njort dina rafet ne euh, incha allahu fi ñu teg mbir mi dinañ fa egg ak jàmm ak salaam mm-hmm. bu ci sénégalais yëpp jàppee ndax président indiqué na yoon bi ni ki def nag ñu mooy ñoom ñu jàpp ci euh, doxal ko comme niñ ko xalaat. Mm-hmm. muy taux de croissance bi tàmbali nga tontu sax ci laaj bi ci toppoon mooy beneen euh, njàqare aussi bu ñenn am mooy euh, milliards yi ñu annoncé yëpp ne moom mooy tax ñu mën a suqali koom-koom bi fan la ko réew mi di jëlee ndax loolu mën nga ci indi tontu. waaw fan la ko réew mi di jëlee boo seetloo ñu faloog Euh, président defar na lu bëri ci wàllu budget wu état jëlee ko def ko doubler pratiquement mais également euh, li ñu def ci infrastructure def ko fépp loolu aussi dañu lépp une partie mais également leneen li ñu génne ko ci sunu propre moyen gis nga Sénégal lebin bi président def ko changé bi mu faloog léegi lebin bi mooy lan mooy lépp pour lekk wala lépp pour fonctionner daf ko dindi ne damay lépp pour tabax pour def loo xamante ne su ma koy defar dama koy naan su ma koy fay ci ñaar fukki at laa koy fay pour fayin bi yomb at bu jot maanaam li ñu tuddee les taux concessionnels programme yi ngay gis yu mag yi Sénégal lancé yépp programme yooyu dina commencé jur dara ci délé bu gàtt ba pare fekk Sénégal la mu ciy fay at bu jot euh, du ko tax a jéggi dayoo trop kon façon yi lebin boobu baax na waaye balaa avant ñuy leb également Sénégal tey dafay dégager ay propres moyens def ko ci yenn yi pour defaral ko boppam boo xoolee programme mu PUDC noonu lañ ko financé woon état du Sénégal moo yëkkati koppar bu takku teg ci taabal bi tàmbalee liggéey boobu avec le programme des Nations Unies pour le développement muy PNUD deuxième phase bi aussi lu ci ëpp ci ressource ci Sénégal lay jul kon fu ñuy jëlee koppar ñu ngi koy jëlee ci ñun sénégalais ñu ngi koy jëlee également ci secteur privé sénégalais tey ji ma jox la benn exemple bu ndaw li ñuy tuddee base pétrolière u Sénégal tey ji yi ko doon xëccu président da leen ne dajaloo leen ngeen créer seen affaire bopp ndax mbir mi diis na diisaay boobu ne boo leen dajalooyee man état bi ma jox leen marché boobu loolu tey base pétrolière boobu nga xamante ne lu ay lu important la ay sénégalais ñoo lëkkaloo pour def ko donc secteur privé national également état bi fas na leen gën a jàppale mais également fu ñuy jëlee koppar boobu toujours ci ñun d'abord parce que entreprise euh, suñuy banque ñun fas nañ la ñuy yéeme ci biir programme phase PAP 2 ak les deux A bi fusionné du ma wax fusionné sax mais fas nañ yéene lëkkale leen pour que ñoom ñu gën a am doole pour mën a gën a lever ay garantie garantie yoo xamante ne aussi dina permettre banque yeneen yi ñu mën a financer koom-koom bi donc wàllu moyen moom amuñu ci tiitaange ndax euh, Sénégal moom signature am valable na ci àdduna bi te lu mu soxla ci àdduna bi Euh, en général day am sax lu ëpp njortam. loolu di ñu indi ci wàllu bor bi nga xam ne président de la république euh, Macky Sall boobu ba tey tamit mi ngi euh, wax ngir ñu daal di koy fomp teggi ko ba mu set ci ndodd Afrique yéen a ngi wéy di jàpp ne faw ñu teggi bor boobu ngir Afrique mën a génn ci mbas meek ni mu ci nërmeeloo. waaw bor boobu Afrique mu ngi ciy def liggéey bu am solo am ci kóolute également ci Sénégal sunu président aussi ci dox jéego yu am solo ndax Euh, boru Afrique euh, déjà dafa diisoon ci Afrique waaye li ci ëpp solo aussi bor la boo xamante ne pour li concerne Sénégal euh, bor la boo xamante ne pour tabax réew mi Covid 19 bi mu ñëwee dafa wàññi état yi la ñuy am ci ay recettes. ba pare yëngal koom-koomu dëkk ya kon dëkk ya bor ya ñu waroon a fay ku leen ko fayeeku comme na nga leen ko waroon fayee ko dafa leen di yokk coono rek kon Afrique tey mu ne mu négocier pour ñu effacer li ñu tuddee la dette publique bi nga ne ñu ko amel euh, mooy ay état ñoo ñu ko amel lañ ko amel wala ay banque mondiale ak FMI organisation yi nga xamante ne c'est des organisations à mondiale kon euh, wax ak ñooñu pour ñu effacer lu ëpp ci bor yooyu loolu day am solo ndax loolu moo ñuy permettre tey sunu as ak néew bi ñu amal sunu bopp ñu mën ko delloo ci sunu koom-koom en attendant moo gën ñu koy fayee ji bor boo xamante ne aussi boor boobu war nañ ñu ko mën a baal muy la dette publique waaye du boor boobu rek la réewu Afrique yi amee am nañu ay bor yoo xamante ne dañ koy leb ay privé ay privé à l'échelle mondial mooy li ñuy tuddee le club de Londres muy bor yoo xamante ne ñooñu pour ñu baal la ko dina jafe ndax ñooñu ay structure privée lañ bor boobu liñ ci Afrique di demandé mooy bor yooyu ñu am ñeneen ñu ko jëndaat pour permettre déjà euh, ñu yokk délai yi ñu ko daan fayee pour Afrique bañ a supporter euh, xaalis bu bëri ci at at bu nekk loolu aussi négociation yi sori mais Afrique am na droit laaj loolu ndax après deuxième guerre mondiale nga xamante ne Europe dañ ko bombardé woon euh, ba mu xaw a mokk rumbax Europe lu mu dem dafa am lu ñu tuddee le plan Marshall jot koom-koom gu jot koppar gu bëri bu jugee Amérique juge ci yeneen dëkk yi. pour tabaxaat Europe mais condition ya ko Europe tabaxaatee nag condition yooyu du ma ne Afrique fa la toll mais tey jii Afrique bokk na ci continent yi nga xamante ne ñoo gën a am jafe-jafe ci wàllu koom-koom kon jaadu na africain yi laaj loolu te mu ngi ci yoon bu baax ndax africain yëpp notamment les intellectuels les jeunes les femmes ñu ci bëri jàpp nañ ci. alors ñu wax euh, ci euh, rapport euh, bi nga xam ne conférence des nations unies sur le développement ñoo ko génnee am na ay fan ci ginnaaw ñu ci wax fuite de capitaux yi ak li muy jural Afrique ci pertement ñu xayma ko ci soixante seize milliards d' euros quarante neuf mille milliards de francs CFA loolu naka la ñu mun a def ba mu jug ci Afrique ndax lii quand même méngoowul ak surtout jamonoy jafe-jafe koom yi nga xam ne si la Afrique nekk. waaw loolu moom lu ñu war a gën a góorgóorlu la te Afrique war na ci gën a góorlu waaye loolu day laaj euh, euh, ci àdduna bi yëpp coopération am si ndax fuite de capitaux yooyu ak invasion fiscale yooyu ñu ñu di wax li ci ëpp fan dem day dem ci fi ñu tuddee les paradis fiscaux maanaam day dem ci dëkk yoo xamante ne euh, dëkk yooyu nañu organiser woo dañu yombal lu bëri foofu dañu yombal lu bëri te sax ña fay am yenn compte yi doo mën a xam ñan la donc tey jii il faut que coopération am ci il faut que ñëpp juboo ci il faut que ñëpp liggéeyandoo ci pour que loolu ñu gën ko mën a combattre waaye nag euh, ci kaw loolu il faut ñu comprendre ne euh, fa façon défine boobu li ko li ko gën a favoriser à l'échelle mondiale mooy il faut que législation yi ñu gën ko harmoniser ndax dëkk yu mag yi léeg-léeg dañuy am benn paradis fiscal teg ko seen wet pour mën a gën a dugg dans le marché financier di def ay spéculation yoo xamante ne aussi du financer mbay mi du financer euh, industrie du financer euh, secteur tertiaire mais day nekk rek di flotter euh, ci loo xamante ne mbiru jënd ak jaay la mbiru spéculation la yoo xamante ne dañ koy def ci bourse yeeg yooyu muy koppar gu takku nag koo xamante ne du dem ci li ñu tuddee l'économie réelle bi nga xamante ne mooy war a le développement loolu nag euh, war nañ ci gën a xar sunu tànk tubéy ñun ñëpp Sénégal mu ngi ciy def ay jéego Afrique mu ngi ciy def ay jéego waaye il faut que ñu régler ko à l'échelle mondiale avec euh, ay loi yoo xamante ne dañ ci harmoniser juboo ci mais également ak comportement yoo xamante ne comportement yu jaar yoon la ndax dëkk yay accepté koppar yu mel noonu di agsi ci ñoom Euh, dëkk yooyu aussi foofu war nañ gën a euh, corser seen législation ba loolu ba a am. kon su ma la déggee Afrique amagul jumtukaay yoo xam ni dana ko mën a may mu xeex fuite de capitaux yi nga xam ni fii la ëppee doole. Afrique mu ngi ciy góorgóorlu Afrique mu ngi ciy góorgóorlu xam nga bu ñu ne fuite de capitaux daf ci am ñaari fànn am na ci fànn boo xamante ne mënoo ko tere ndax ki réaliser ay bénéfice bu ko neexee mu yóbbu ko entreprise bu amee ay bénéfice ci dëkk am na droit rapatrier leen say bénéfice mais am na ci boo xamante ne dafay illicite maanaam yeneen xeeti yóbbu koppar lay doon yoo xamante ne il faut que ñu gën cee góorgóorlu te je sais que africains yi ñu ngi ciy góorgóorlu mais li ëpp importance rek mooy la sànq ndax il faut que coopération am maanaam dëkk yëpp ñu méngoo ci ba nga xamante ne yenn transaction yi bu amee rek Euh, ñëpp mën a euh, ñu mën ci liggéey rapidement pour pour trouver une solution. Mamadou Ndione ñu ngi lay gërëm euh, amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaa jiite COSEC nekk itam économiste. waaw maa lay gërëm di la sant di nuyu seen auditeurs yëpp.